dal leen ak jàmm mbokk internet yi wax ji moo waral ba ñu convoqué Cheikh Yérim Seck ca section de recherche bu brigade de la gendarmerie journaliste bi di Cheikh Yérim Seck dina jàkkaarloo ak woy l'enquêteur yi ca brigade de recherche bu gendarmerie tey ci altine ji bu ñu sukkandikoo ci waa RFM boobule convocation li ko waral mooy ki nga xamante ne mooy Cheikh Yérim Seck ci génnam bu mujj ci plateau télévision bi dafa yëkkati ay kaddu yu saf-saf ci wàllum justice ak état yooyu mu ngi ko yëkkati ci ab plateau xamante ne ma nga amee woon ca 7TV Cheikh Yérim Seck di ci xamle ne la gendarmerie a saisi 4 milliards de francs CFA et non 650 millions à Bati Plus maanaam waa gendarmerie 600 millions yu ñu wax ne moom la ñu jëlee ci Bati Plus daanaka ëpp na ko ndax liñ ci jëlee dëgg-dëgg mu ngi toll ci ñeenti milliards ci sunu xaalis moom njaati képp këru liggéeykaay bii di Yérim Poste boobu la xibaar bu mu feeñ mel na ni ab balu fete bu ñu dóor tuyyi ci l'état bu Sénégal ak waa Kër Farès ci lu jëm ci wàllu scandale maanaam coowal luubalum xaalis bu toll ci ñaari milliards ak lu topp ci suñu xaalis ñu jëlee ko ci société boobu nga xamante ne moom mooy Bati Plus journaliste bi xamle na ne ay naaru libanais ak i homme d'affaires ñoo ngi ginnaawu sénégalais yi di bara yëgoo ak état bi ngir duufal seen gafag leneen lu ñuul ci mbir mu ni mel te jaaxal Cheikh Yérim Seck mooy lan moo waral ñu jël directeuru Bati Plus daal di koy placer sous mandat de dépôt te luñ ko juge daal dëgg-dëgg gouvernement bu Sénégal dafa war a topp ci yoon ki nga xamante ne moom mooy Christian Samra ak waa Kër Fares ngir mën a gën a rataxal digganteem ak ñi nga xamante ne mooy waa États-Unis te ñoom itam bile dossier lu leen soxal la bu ñu sukkandikoo ci kàddu Cheikh Yérim Seck ginnaaw directeur général bu Batiplus mel na ni bu ñu sukkandikoo ba tey ci kàddu ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck ne ah justice bi daal doy na waar ndax ministre de la justice daf cee taq rép nin ci bat mi ngi xamle justice bii di Malick Sall ma nga ca digg mbir ma moom ak cabinet bi nga xamante ne moom mooy défendre ki nga xamante ne mooy waa kër Fares journaliste bi di Yérim Seck daanaka ma ngay siiwal ab baara yëgoo gu am ci mbir mi te yëgle ne cabinet ki nga xamante ne nii moom mooy Malick Sall nekk jamono ji ki nga xamante ne moom mooy ministre de justice bu Sénégal setul ci mbir mi waaw kay lii daal moo waral ba ñu convoqué ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck ngir déglu ko leen ci yeneen i xibaar jërë ngeen jëf